nee na asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yépp ak mbokki taalibe yi sëriñ bi nee na ñu ngi leen di nuyu ku ne ci saw tur ak saw sant di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi Seex Amsatu Mbàkke nuyoo beeg siyaar bi ci loxol ndaw yu mat ndaw yi mu fi di teg nuyoo bi ak siyaare bi yëpp ci loxoom ndaw yu mat ndaw yi nga xam ne ñoom la fi sëriñ Amsatu Mbàkke yabaloon. di nuyu di siyaare mbokk yi fi fekk yëpp. di nuyu di mbokk yi ñu fi fekk yëpp. ràññee ci Cheikh Abdou Karim Mbàkke. nuyu di siyaare bu baax. di nuyu tey siyaare bu baax. Serigne Cheikh Bamba Touré. Serigne Cheikh Ahmadou ko wër moom mi nga xam ne mooy jëwriñu taalibey sëriñ Touba yi nekk Thiès yëpp ak li ko wër. aw way juróom wu wa muy Serigne Saliou Touré. woo xam ne da caa aw waa juróom wu tedd wa muy Serigne Saliou Touré. yàlla na ko sunu borom yokk ay leer. ñu ngi nuyu bokk jullit yi ak bokk taalibe yi yëpp. yéen a fi fekk yëpp. Moustapha mii nga xam ne. di nuyu Moustapha mii nga xam ne. moom la yàlla dogal liggéey bu mag bii tey. sunu borom taw feexale ko ko. mu xalaat ko. mu xalaat ko. laaj ci ndigal. laaj ci ndigal. ba am ci ndigal. ba war ñu ñun ñëpp. njëkk sant yàlla sunu borom nag. njëkk sant yàlla sunu borom nag. moom mi nu taw feexalee nu ànd ak Serigne Touba Khadim Rasoul. moom mi nu taw feexalee nu ànd ak Serigne Touba Khadim Rasoul. di julli ci yonent bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di sant seexuna seex Ahmad al Xadim moom mi nga xam ne lii lépp ndax li ma toon a wax lépp ñi jiitu te jël kàddu seeni wax jotal na la ma toon a wax lépp wax nañ ko ñu am lu tuuti luñ ciy dolli rek. waaye ñu am lu tuuti luñ ciy dolli rek. ginnaaw bu ñu sant yàlla sunu borom sant xaadim rasul. ginnaaw bu ñu sant yàlla sunu borom sant xaadim rasul. mooy di soññi Moustapha mii rek. mooy di soññi Moustapha mii rek. ci yoon wii mu jaar. ci yoon wii mu jaar. di ko digal mu dollee góorlu di ko digal it mu dollee góorlu te fedd li ak laxasaayam te xam ne sëriñ Touba moom dafa gore. te xam ne Serigne Touba moom dafa gore. boo fobee sa lépp jébbal ko. boo fobee sa lépp jébbal ko. mu te mu dencal la sa lépp. mu dencal la sa lépp. nii mu mel nag. nii mu mel nag. dafa mel ne lu mu donn la. dafa mel ne lu mu donn la. ndax moom dafa judd ci ak taalibe. ndax moom dafa judd ci ak taalibe. ay way juram. ay way juram. ak i baayam. ak i baayam. ak i maamam. ak dañoo jeex tàkk ci Serigne jeex tàkk ci Serigne Touba. jeex tàkk ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir. moo waral melokaan mu mel. moo waral melokaan wi nga xam ne moom la mel. kër gee mu fekk baax. boo fa duggee. boo fa duggee. noonu rek lañ mel. noonu rek lañ mel. lu fa gone tuuti tuuti. lu fa gone tuuti tuuti. moom yàlla dafa dogal. moom yàlla dafa dogal. mu gën cee fees rek. mu gën cee fees rek. ndax xasida yi boo bàyyi boo bàyyi sa lépp. ndax xasida yi boo bàyyi sa lépp. féete woo xasida yi. féete woo la. faaw xasida yi tungoom la. loo xam ne. ba defal la xam ne. ñu waaye nag ak taalibe daf ndax kër gee nga xam ne fa la fekk baax. muy ñaari way juróom muy ñaari way juróom ya ak seen kilifa gu baax ga. ak kilifa gu baax ga. di sëriñ mat yi ñing. di sëriñ mat say ñing. nga xam ne mooy kilifa ak baayam. nga xam ne mooy kilifa baayam. di magam. di magam. moo leen xàllal yoon wi. moo leen xàllal yoon wi. seen kilifa ñoom ñëpp. doonoon seen kilifa ñoom ñëpp. teete leen. teete leen. nekk ci lu baax. nekk ci lu baax. jeex tàkk bi. jeex tàkk sëriñ bi. nampatal leen ca. leen ca. ba yoon moomu jaaroon. ba yoon moomu jaaroon. ñoom ñëpp loolu rek la xam. ñoom ñëpp rek la ñu xam. kon nag ñoo ngi seeral bokk jullit yëpp. kon nag ñoo ngi seeral bokk jullit yëpp. ak bokki taalibe yëpp. ak bokki taalibe yëpp. di leen xamal ne. mustafaa Moustapha. gone la gone la. waaye nag nii mu mel. nag nii mu mel. ñi xam démb. ñi xam démb. du leen bett. du leen bett. ndax ba muy tuut tànk. ndax ba muy tuut tànk. lama lama sëriñ Touba boole ak moom. sëriñ Touba ak moom. ma doon jëwriñam. ma doon di nab nabi. ñuy ànd di na bi la ma ko tanee ma di ko ca soññi. la ma ko tanee ma di ko ca soññi. ba yàlla dogal bi ma tàmbalee ñëw cees ba yàlla dogal bi ma tàmbalee ñëw cees ma xool ne koñ bii. ma xool ne koñ bii. daara ju ñuy tudd di tudd sëriñ bi. daara ju ñuy tudd di tudd sëriñ bi. mel na ne bu fi amee it. mel na ne bu fi amee it. bëree gu fi lool. bëree gu fi lool. gone yi ma fi jotoon a xamanteel. gone yi nga xam ne ñoom laa fi jotoon a xamanteel. ma waxtaan ak ñoom. booba sax fekk naa. booba sax fekk naa. ñu am seen yéene. ñu am seen yéene. di nab nabi. di nab nabi. waaye ma ñëw fekk leen ci loola. waaye ma ñëw fekk leen ci loola. gën leen a soññi. gën leen a soññi. ba yàlla dogal. ba yàlla dogal. ñu boole seen bopp. ñu boole seen bopp. def leen mel ne ab daayira. loola di màgg ba. loola di màgg ba. ñu fi daara. ñu dem ba wut fi daara. di fi jàng alxuraan. di fi jàng alxuraan. ku ferul ijji ci ñoom. ku ferul ijji ci ñoom. boo ñëwee ñu di la jàngal. boo ñëwee ñu di la jàngal. ba nga fer ijji. ba ba li ëpp ci ñoom. ba li ëpp ci ñoom. ñu dem ba man di jàng xasida yi. ñu dem ba man di jàng xasida moo dugal Moustapha ci xasida yi. loolee moo dugal Moustapha ci xasida yi. waaye nag mu am ci bëggu boppam. xam naa lu ko Serigne Touba waroon a liggéey loola. xam naa lu ko Serigne Touba. liggéey loola ni ko sëñ Abdou Karim mii waxee ci farlu boppam mu ci farlu boppam waaye nag lépp loo gis ci àdduna waaye lépp loo gis ci àdduna lépp sunu borom dogaloon na ko démb tey doog lépp sunu borom dogaloon na ko démb tey doog a ñëw xañ na nii mu mel ci xasida yi na nii mu mel ci xasida yi ak jagleema ak jagleema ak lu ko sëñ Tuubaa doon liggéeyloo ndax bari na moroomam yu mu ci bokkaloon nekk. te fes gii mu ci fes. amaguñ ko amaguñ ko. yàlla nañ ko am nag. kon dafa mel ne. kon dafa mel ne. loola taw fee xam la. loola taw fee xam la. bokkam yépp it. bokkam yépp it. loolu lañ xam. loolu lañ xam. nangu ko bu baax a nangu ko bu baax a baax a baax. di ko tiitaroo. di ko tiitaroo. ndax ku sañoon ku ne. ndax ku sañoon ku ne. sa biir kër. sa biir kër. sag njaboot. sag njaboot. danga nga ca am koo xam ne. da nga ca am koo xam ne. fu ñu tuddee xasida yi. fu ñu tuddee xasida yi. xel yi ñëpp dem ci moom. xel yi ñëpp dem ci moom. loola nag yàlla defal na leen ko ñoom. loola nag yàlla defal na leen ko ñoom. nii ci xasida nii mu mel ci xasida yi. way juram way juróom sëriñ bàcc sëriñ bàcc noonu yi la meloon ci xasida yi noonu yi la meloon ci xasida yi bàyyam mat say ñi ngi it bàyyam mat say ngi it jëllale naa ko jëllale naa ko ku ko xamoon ku ne boo ñëwee boo ñëwee li ngay njëkk def li ngay njëkk a def mooy fekk ko muy jàng xasida mooy fekk ko muy jàng xasida boo ñëwee it boo ñëwee it bokk na ca lam lay jox addiya. bokk na ca lam lay jox addiya. ak xasida ak xasida. bàyyi mët sëy noonu la meloon. bàyyi mët sëy noonu la meloon. bàyyam bi ko jur di rakki sëñ mët sëy di sëñ bàcc noonu la meloon. bàyyam bi ko jur di rakki sëñ mët sëy sëriñ bàcc it noonu la meloon. li ñuy wax hasard amut. li ñuy wax hasard amut. te sunu borom lum na ma def lu ne rek. te sunu borom moom lu mu na ma def lu ne rek. da koy waajal da koy waajal. ba mu xàmmee nday jooram ak càmmoñam. ndax ba mu xàmmee nday jooram ak càmmoñam. bu fekkutoon ay waajuram mel nii ci xasida yi. bu fekkutoon ay waajuram mel nii ci xasida yi. kon mën naa am leneen fëkk ko. kon man naa am leneen fëkk ko. wala ay bëgg-bëggam jëm ci leneen. wala ay bëgg-bëggam jëm ci leneen. waaye ba mu laataarooy kenn nag. waaye ba mu laataarooy kenn nag. dafa xàmmee ci biir këram. dafa xàmmee ci biir këram. gis ay waajuram mel nii ci xasida yi. gis ay waajuram mel nii ci xasida yi. loolu moo ko ci sawarloo mu boole ko pësteefu boppam na ak bëggu boppam moo tax mu am ci lii mu ci am sunu borom nag bu la nammee taw féexal sunu borom nag bu la nammee taw féexal dalay dajale ak nit ñu baax dalay dajale ak nit ñu baax ñoo xam ne dañ lay dimbali ñoo xam ne dañ lay dimbale di la taxawu di la taxawu di la soññi di la soññi moo bi ko sunu borom naree dimbali ci xasida yi. moo waral bi ko sunu borom naree dimbali ci xasida yi. mu dajale ko ku mel ne Cheikh Amsatou Mbacke. mu dajale ko ku mel ne Cheikh Amsatou Mbacke. nga xam ne ku nar sunu borom naree dimbali ci xasida yi rek. nga xam ne ku sa borom naree dimbali ci xasida yi rek. bu la defee ci boppam rek. bu la defee ci boppam rek. Euh, war ngaa mën a sant yàlla bu baax. war ngaa mën a sant yàlla bu baax a baax a baax. sëñ Cheikh Bamba Touré mii. loolu du it mu boole koog Cheikh Ahmad Bamba Touré mii. nga xam ne moom rek doy na sëkk. nga xam ne moom rek doy na sëkk. kuy wut jëwriñ. kuy wut jëwriñ. ba yàlla boole la ak moom. ba yàlla boole la ak moom. war ngaa sant yàlla bu baax war ngaa sant yàlla bu baax a baax a baax. digganteem ak Moustapha it. digganteem ak Moustapha it. Uh, sama gisee moom bëriwut. sama gisee moom bariwut waaye lu bëree bëri xam naa ko waaye lu bëree bëri xam naa ko ci. ndax Moustapha leeral na ma ko. kon nag euh, Serigne Cheikh Bamba. kon nag Cheikh Ahmad Bamba. Serigne bi nee na mi ngi lay gën a dénk Moustapha mi bu baax. ndax ñun li li ñu yitteel rek. ndax li ñu yitteel rek. mooy njaboot gi tege ci yoon. mooy njaboot gi tege ci yoon. Cees euh, gi yaakaar naa ne. Cees gi yaakaar naa ne. samay tànk bariwu fi. samay tànk bariwu fi. Euh, waaye lii sunu mission ñun ñëpp. waaye lii suñu mission ñun ñëpp. mooy lii rek fu ñu fekk eh, ay tuut tànk. mooy lii rek fu ñu fekk ay tuut tànk. ku ci njëkk a ci nun rek. ku ci njëkk a yem ci nun rek. Eh, jéem te kemt laayal kattanam. jéem te kemt laayal ndax ñu mel ne ni sëriñ bi bëgg. ndax ñu mel ne ni sëriñ bi bëgg. loolu moo waral ma daan ñëw Thiès. loolu moo waral ma daan ñëw Thiès. rawatina jàmm gën gii. rawatina jàmm gën gii. ba xamante feeg ñoom. ba xamante ñoom. Eh, la ma mën a kus néew. la ma mën a néew. ki di leen soññi. ma di leen ci soññi. ma di leen ci soññi. ñoom it ñu ñu neex a digal. ñoom it ñu ñu neex a digal. di ñu di ñu bëgg lu baax. ba tax daanaka liñ may gis bëriwut. ba tax daanaka liñ may gis bëriwut. waaye luñ ma gëj a gis. waaye luñ ma gëj a gëj a gis. su ma ñëwee. su ma ñëwee. fa ma leen bàyyi woon daaw. fa ma leen bàyyi woon daaw. bu ñëwee danaa fekk ñu weesu ko. bu fekk ñu weesu ko. loolu nag Pastef rek leen ko may. loolu nag Pastef rek leen ko may. am jëwriñ yu mel ne yéen ñu mati jëwriñ ak am jëwriñ yu mel ne yéen ñu mati jëwriñ ndax euh, gone lu mu bëgg bëgg lu baax ndax gone lu mu bëgg bëgg lu baax te amul ku koy soññi te amul ku koy ku koy teete amul ku koy teete lu baree bari mën naa des lu bëree bëri mën naa des kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ba leen sunu borom boole ak ba sunu borom boole ak ñoom ànd di ci sëriñ bi ci ñoom. ñu ànd liggéeyal sëriñ bi ci ñoom. loolu lépp nag ko ci Cheikh Saliou Touré. lépp nag ñu royee ko ci sëriñ Saliou Touré. Euh, sëriñ bi tànn ko. looloo taxoon sëriñ tànn ko. ndax damay wax ne sëriñ Saliou Touré. ndax damay wax ne sëriñ Saliou Touré. tànneefu sëriñ la. tànneefu sëriñ Touba la. ni sëriñ Touba wutee ay gaayam. ni sëriñ tubaa wutee ay gaayam. ci gox yu nekk. ci gox yu nekk. loolu la tànne woon Serigne Saliou Touré indi ko fii. loolu la tànne woon Serigne Saliou Touré indi ko fii. muy lu yàgg lool. muy lu yàgg lool. booba Thiès nii mu mokke. booba Thiès nii mu mokke. melu ni woon. melu ni woon. ab gott la woon. ab gott la woon. boo xam ne ak taalibe tumuranke woon na fi. boo xam ne ak taalibe tumuranke woon na fi. Serigne bi xam ne ku mel ne Serigne Saliou Touré rek. Serigne bi xam ne ku mel ne Serigne Saliou Touré rek. lam bëgg ci ci wet gi moo ko man lam bëgg ci wet gi moom rek moo ko man waaye alhamdulilahi rabbil alamin tey Thiès ak li ko wër ak li ko fu ñuy tuddee ak taalibe fu ñuy tuddee ak duñ jiital kenn teg leen jë loolu nag ginnaaw yàlla ak Serigne Touba loolu nag ginnaaw yàlla ak Serigne Touba liggéeyub Serigne Saliou Touré la kon nag yàlla na ko Serigne Touba fayal te liggéey bi mu leen fi bàyyil yàlla sunu borom woyefal yan bi ba ngeen àggale ko foo xam ne moom sax foofu ko woon yomb na yàlla yàlla ko yàlla def ñoo ngi sant bokk yépp nag ak bokki taalibe yépp ndax woote ñu wuy si la dafa yombut ndax jamono xat na yitte yi bari na te moom Moustapha waxal na ma ci boppam ne ma bisub tey bii dey Thiès gi bëri na ay xew-xew yu fi am. Thiès gi bëri na ay xew-xew yu fi am. Eh, kon nag. kon nag. bu wootee. bu wootee. Eh, ñëpp wuy si ko. ñëpp wuy si ko. loolu dafay am lu muy firndeel rek. loolu dafay am lu muy firndeel rek. Eh, mooy cofeel gi waa Thiès am ci moom. mooy cofeel gi nga xam ne waa Thiès am nañ ko ci Moustapha. ak bokk taalibe yëpp. ak bokk taalibe yëpp. ak bokkam yëpp. ak bokkam yëpp. loola nag kenn jiituwu ci bokki boppam yi. loola nag kenn jiituwu ci bokki boppam yi. bokki boppam yi nañ ne. ndax bokki boppam yi xam nañ ne. Euh, lu Moustapha am. lu Moustapha am. ñoom ñoo ko am. ñoom ñoo ko am. lu Moustapha mel. lu ñoom ñoo ko mel. ñoom ñoo ko mel. Euh, ndax munta am lu leen ëpp. ndax munta am lu leen ëpp. munta mel lu leen ëpp. munta melit lu leen ëpp. Euh, lu mu melit. nu mu melit. fu ñu ko tuddee. fu ñu ko tuddee. daat leen di tudd. daat leen di tudd. kon nag. kon nag. noo ngi sant bokki boppam yi. noo ngi sant bokki boppam yi. ñi mu bokkal sëñ mat say ñi ngi ñëpp. ñi mu bokkal sëñ mat say ñi ngi ñëpp. ak ñi mu bokkal sëñ ñëpp. ak ñi mu bokkal sëñ bàcc ñëpp. ak bokkam yépp ci wàllum ndeyam. ak bokkam yëpp ci wàllum ndeyam. ak bokkam yëpp. ak bokkam yëpp. ñoo ngi leen di sant bu baax a baax. ñoo leen di bu baax a baax a baax a baax. di leen xamal ne. gis nañ seen taxawaay. gis nañ seen taxawaay. yàlla na leen Serigne Touba fay. Euh, xam naa kàddu yi moom. xam naa kàddu yi moom. sant dafa mënut ñàkk rek. sant dafa mënut ñàkk rek. ndax euh, Moustapha lu waay def ci moom rek. ndax Moustapha lu waay ci moom rek. ñun nga ko defal. ñun nga ko defal. ndax ñun la ko sëñ Touba booleel. ndax ñun la ko sëñ Touba booleel. ñuy jëwriñam. loola nag terewut. loola nag terewut. kenn ku ne ci ñun. am na ci am na ci moom cër boo xam ne. am na ci moom cër boo xam ne. man ngaa wecc li ma doon ci moom. man ngaa wecc li ma doon ci moom. tey tey waxu leen ko rek da koo jëfee. tey it waxu leen ko rek da ngeen koo jëfee. ndax xàmmeewu leen ko seen njabootu bopp gi. ndax xàmmeewu leen Moustapha ak seen njabootu bopp gi. kon seriñ bi nee na ñu ngi leen di sant bu baax. di leen ko doolee dénk. di ñaan sunu borom nag. di ñaan sunu borom nag. bis bii mu taxawal. bis bii mu taxawal. jublu ci sant Serigne Touba Xaadim Rasul. jublu ci sant Serigne Touba Xaadim Rasul. def ko bisub def ko bisub xasida. def ko it bisub delloo njukkal ak sant Serigne Saliou Touré. def ko it ak sant Serigne Saliou Touré. yàlla na bokk ci bis yi Serigne Touba gën a nangu. yàlla na bokk ci bis yi Serigne Touba gën a nangu. lépp luñ fi jàng ci alxuraan ak xasida. te lépp luñ fi jàng ci alxuraan ak xasida. jotaleel ci tuyaaba yàlla na ko sunu borom defal addiyee Serigne Touba Khadim Rasoul. yàlla na ko sunu borom defal addiyee Serigne Touba Khadim Rasoul. te jotale tuyaaba yi Serigne Saliou Touré. te jotale tuyaaba yi Serigne Saliou Touré. ak mboolem sunu kilifa yu baax yi fi bàyyi ko yëpp. ak mboolem sunu kilifa yu baax yi fi bàyyi ko yëpp. te ñu yàgg leen a ñaanal. te ñu yàgg leen a ñaanal. ba liñ bëggoon ci liggéeyub Serigne Touba bi yëpp. ba liñ bëggoon ci liggéeyub Serigne Touba bi yëpp. def nu mottali leen ko. sunu borom def ñu mottali leen ko. sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax di sant bokki taalibe di sant bokki taalibe boppam yii. di sant it bokki taalibe boppam yii. ci nii ñu ko taxawoo. ci nii ñu ko taxawoo. ndax lépp lu mu nekk rek. ndax lépp lu mu nekk rek. ànd nañ kook moom. ànd nañ kook moom. te lu ko sunu borom defal te lu ko sunu borom defal it. yéene nañ ko ko. nañ ko ko. kon nag noo ngi leen di sant bu baax a baax. di ñaan ñu nga daje ku fi teew rek noo ngi ñu ngi lay sant. teew te yàlla dogalu it noo ngi lay sant. ku amoon yéene teew te yàlla dogalu ko it sëriñ bi nee na mi ngi lay sant. di ñaan suñu borom faj aajo yëpp. suñu borom saafara jàngoro yëpp. ca daje la ñoo ngërëmal xaadim rasul. jasaakumullaahu xeeral jasa jërë ngeen jëf.